asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine juróom benn fan ci Saabaan muy weeru baraxlu ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett juróom benn fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci taamu mooy ku ca wattu wala ku ca daloo altine ju nekk sunna la ci ko man mu woor ñaanu bés bi yow yàlla yàlla nag ma laabal ci ay bàkkaar i njuumte allahumma tahirni min addunubi wal xataaya allahumma tahirni min addunubi wal xataaya xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli te jàngoo fatiha amoo ak julli xadis bi buxaari ak muslim nettali nañu ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa salaata lima lam yaqra bi fatihatil kitaab rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli suba waxtam dana tàbbi six heures dix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 soo ko féetee gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre ju ne yokkal benn simili jant bi dana fenk sept vingt cinq juróom-ñaari waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juróom di so dix neuf heures douze juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñaar yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin